kuy Iran dal moy nit ku ñak solo ma ngi juddo salum salum la juddo dekk bu ñu wax euh sama wuy jur nag judduwuma nak ci fami bu néew doole xeyna man ma doole di jaay radio rek ak di jaay ak ay famille bi ma juddoo ñu am doole lañ dama amoon sama goro moo doon denc suma taaw yaay fatki ni daf ma daan wax ni ku juddu ci barke sa baay am alal sa ndey am alal sa baay am alal sa bu la neexee réew ma ne ko réew warul kenn parce que nit a moom alal mais alal moomu nit lépp loo am mu soppi la rek moo moo ko waaye lépp loo yor soppi ko rek yaa ko moom nit mooy soppi jamono mais jamono du soppi nit suma papa baykat la woon bari woon jur lool bari woon ay surga ku mënoon sonn ci dimbali nit waaw mu dëkk bi mu dëkkoon ci digg dëkk ba la kon ku baax du lim ma jur bi ma nekkee xale maa ngi fàttaliku dafa feebaroon bi mu waree dem faju ji mu dajale doom yëpp ak rakkam yi maa ngi rappelé wu sama yaay toggal ko ginaar yu ànd ak benn reenu garab yu ub super ba fële mu ne ah, maa ngi dem faju ji mag ñi dañ ko daan def bu ñuy génn dañuy seet ki mag ci jigéen ñi ni ko kër gaango ki mag ci doom yi ñu topp ci moom muy dem mu dénkaane ba pare ne Ibrahima mu ma uuf nii yéen jàng laa bëgg ci yéen su dundee loolu laa bëgg su ma dee loolu laa bëgg dégg nga ma ne ko mu ne ma bopp du wax génn ñuy wax ma ne ko waaw yàlla dogal mu dem gaañu sama maam yor ma sëñ daara am man ndaw ca faas ba wàcc alxuraan ci moom mu ne ma li nga bëgg ci xam-xam ci waawoon rek laa yaakaar nga mun ko fa amee damay bind lettre waxtaan ak sa yaay ñu jox la sëriñ Abdou nga dem ci daara ji mu bind lettre indi ma Tiwaawan ñu jox lettre bi sëriñ Abdou mu boole ma ak Oustaz Ousseynou Diène seen doomu ndey la mu yor ñu ci daar ji ak Diouf man nag ma ne ci daara ji bi ma demee ba nga xam ne njàng mi doxul ci laa aw sama yoon boobu jàng parce que itam ginnaaw moo ma tax a jóge Saalum waruma toog te xaw ma waruma dellu te yóbbuwuma te xam naa ni yoon wii ma gisuma ci awee duma xam dara ma daal di jaar su ma xëyee dem jàngi daan naa toog soxna si du ma lekk su ma xëyee sept dem jàngi maa ngi ñëw sept heures ci ngoon maa ngi fàttaleku daan naa yey gerte yu ànd xott yu ndax xiif booba gën naa nekk xale takkuma ko mais gën naa nekk xale su ma amee juróomi dërëm mu wóor ma ne su ma ko jëndee caaf du ma suur ma jëndee ko gerte xott damay boole xott yi ak doom bi yëpp pour mën a am kattan. xott bi ak doom bi ngay boole. su ma ko yéeyee ba pare ndax parce que boo ko yéeyee ba mu nooy du la gaañ man naan daal di continuer ba mu yàgg ma xam ne lii métti na ma ne au lieu que may continuer rythme bi naa woor boobu laa commencé. chaque jour je suis fi pour 20 ans je suis doo Donc, xam ci man pas ma la parce que je suis xëy Je ma suis du du temps je continuer di woor chaque jour tabaski korité rek laa je la tabaski korité lu tabaski korité je koy là. parce que je suis naa bi suis là, je suis Serigne Cheikh daf ñu waxoon ni daara bu métti dana la may ci ñett yi benn benn nga am xam-xam baa ngay jaamukatu yàlla baa nga am fit daara da koy def